gaa yi ci mbokki Moussa lañ bokk waaye alal jënd jënd nañ leen ci alal soxlaw sax ànd ak yéen man xam naa kër kër Imran jaam yi danañ ma yóbbu ba foofa ba ma àgg ca Fawlaawi nii rek seen quartier ba foofu nag moom foofu laay jël sama plan ak sama yoon dinaa fexe ba dugg kër Imran ci seen ginnaaw laay jaare dinaa laqatu ca ginnaaw sàkket ya ba dugg ca biir li ma bëgg a jëflanteeg Moussa dinaa jëflanteek moom caay ni bi xuur allahu akbar bu ko defee nit ñëpp bu ñu yeewoo nag daal di ma fay gis nag ma daal di fël ak sama yaramu neen nag mais mel ni daal damaa génne wala ma potox la woon ca néeg Imran ba rek gis nga ñi lay ñooy njëkk jiitu ngir nag di yee population bi ndànk-ndànk naa leen parce que soxna comme que tëral na plan léegi ñi dañuy jiitu pour yee nit ñi ndànk-ndànk subhanallah ca ci it seeni mbokk lañ ñii bokk na ci ñi man maay sooxaat doomu seen xoon ubbil ubbil tet tet tet fajar jotagul waaye ñëpp la ñu yee rek pour ñu xam lo tuskare ñee la lu xew loo xewle génnal ka kaay gunge ma ci ginnaaw kër Imran fa Muusaay fanaan ñu fekk fa Muusaa ne muy nay julleeg yooyu man gis naa jigéen ju fa dugg gis naa jigéen ju tëdd ca lalu Moussa ba waaye yéreem sax da kaa summee ko Moussa dina def loolu Moussa dina fat jigéen loolu Moussa xoolal gis nga kon kooku yee nañ ko allahu akbar subhanak yàlla ñu yàlla ar sugal jugal eh, waay doo julli fajar gi ànd ak Moussa jugal lan moo tax nga yee nit ñi heure bi ci julli jugal mu gaaw jugal nañ dem nga gis ndax est-ce que est kenn am na droit di julli ci ginnaaw muusa ah Moussa ak fatoog jigéen sa sa doom yeeg sa sëriñ ñëpp ñëpp gis nañ li xew ñëwal ñu dem seet xool ni ñu génnee mag ñi rek yenuma gàddu ay waaye sama doom yi lu ngeen defe maam jugal maam defal ndànk maam defal ndànk wàcc leen seen baat yéen ana Ariir ak Faaras doom sa sa doom yi sa sëdi anañu ñu ngi nelaw mbi mbir mi li leen li ma intéressé intéressé wu leen de lu xew teel sa sa maam dugalal sa maam ji sa maam ji soxlawuñ ko laggal na dugg ci biir wala nga gàddu ko ñu dem yow Moussa Moussa jugal julli waay Moussa jugal julli musaa nit ñi ñëw nañ jugal jugal jiite ñi julli bokk wala dangaa sonn ci guddi gi subhanallah Moussa dangaa jëflante ak soxna si ba sonn ah mu ngoog na génn na li bi xóor a ngoog de subhanaka ya rabbi tet tet tet may leen ma ma jàll laa wax may leen ma jàll waa soxna si foo nekkoon yow yéen lu lu leen seen yoon ci man demal ni foo génn laa wax ah gisoo fi ma nekkoon xanaa say bët gisal na sa bopp looy wax looy laaj kay nga gis ma génn ci néeg bi ngay laaj yow yaay kan yaay kan loo doon def fii gis nga gaa yi la ànduloon sori leen ma sama yoon laa man maay man maa nekk ci Firawna maa maa fa nekk maay maay seen bëkk nekk yow place bi nga am di nga def lu ñaaw lii fanaan ci la ah yow ngay fanaan ci la lu koo xam dafa am jabar ah xoolal sama yaram daal may naa ko muusa ndax man damaa sell man may naa ko waaye ka nekk ah ka fa ma nekkoon nag maa ko dama kaa nopp ah dafa dem seq ak jabaram ñun ñaar kenn du fàttante suñ morom dégg ngeen ni waaj wax ndax seet ngeen li wax waa loo doon def ci lalu Moussa looloon def ci lal Moussa ah xanaa ñu nobante li ñuy def rek ba fajar jot rek nekk ca mag moom ba fajar allahu akbar accusation tuuma la ah saaxib Moussa ñëw na nag allahu akbar ceet tët tët ñu xool ba xam ndax si ndaw si lu wax dëgg la wala déet hmm? soxna si yow lan ngay jéema lor Moussa lan mooy tax ngay sosal Moussa lu dul dëgg ah ku tedd kaa ngi ñëw day ak leer ga ndeysaan allahu akbar lan moo tax ngay tuumaal Moussa loo tax nga koy tuumaal kóor gu sell gu yiw gu leer gii sori bàkkaar sori ñaawteef nga koy tuumaal Moussa ngi nii mu ngi ne génn na xool leen jëmm ju tedd ji xool leen kanam gu leer gi subhanaka ya rabbi daa mel ni leer ga nee na tay ca xolu ndaw sax rahbaaniye ga wala nag rabbaaniye ga nee na tay ca leer ga hay booba nee na tay ca xol ba ndaw si ni ma tula dem de subhanaka ya rabbi allahu akbar ñépp jàq ndax gu ndax jëmm ju tedd ju leer jii est-ce que war nañ koo tuumaal naan dafa njaaloo di wax ci moom lu bon est-ce que jaadu na yéen ñiti Moussa déglu leen ma ee eh, yéen niti Moussa ee eh, yéen niti Moussa déglu leen bu baax li may wax dëgg gi tey duma leen ko nëbb de tey ji léegi daal fim nekk nii ah dafa am ak tàkk-tàkk bu dugg sama xol bi sama yàq sama cër yépp bi ma xoolee jëmm ju jëmm ju tedd ju sell ji daa mel dafa am safara su dugg sama xol ee eh, yéen ni ci Moussa dama damaa sosal Moussa de wallaay Moussa ku sedd la Moussa deful dara damay fen waxuma dëgg de Moussa ku sedd la li ma wax dara amu ci allahu akbar allah yaxkumu bayna alxaq allahu yaxkum bil xaq ee yéen niti Muusa maa ngi waat ci ki wax yi ci Muusa maa ngi waat ci yàlla dëgg ji yàlla ji nga xam ni diin ñépp seen diine ci moom lañ ko wékk Muusa mii dey Muusa gisuma sax gisuma tegumay gët wallaahi laaluma maa ngi Muusa gisewuñu sax يبقى حور tafaddal tafaddali waaye sama nit ana ñi ma àndaloon ana ñi ma àndaloon fii ah xool leen fii Soxaar Simoni ci la bokkoon Ilooni Saay ci la bokkoon Xaabarum nu Sofyaan ci la bokkoon ñoom ñëpp daw nañ làqatu ji ñoo bokkaloon ak man diil bi maa ngi ñoom ñoo ko seqoon ak Haamaan ak Qaaruun léegi fi mu nekk daw nañ dem ca Qaaruun dinañ dinañ dinañ wax la ah, danañ leeral mbir ma ndax danga gis Qaaruun yow lii ngay wax ni yaa Qaaruun yéen a ci wax yéen a ko seqoon ah kay waaw waaw ñoo ko ñoo ñoo tegaloon plan bi de. dara deseetuma lu dul ma wax ma wax dëgg yàlla gi rek allahu akbar cey yàlla feeñal na dëgg mbokk yi yàlla ñu yàlla musal ci tuuma bu kenn tuumaal sa mbokkum jullit alxuraan tere na ko nee na ko tuumaal jullit ci njaaloo ci andiwoo ay ay ay seede nañ la dóor juróom bu kenn sa mbokkum jullit jàppel ab kàccoor dootoo dootu ñu la jàppe benn témoin nañ leen dem ca pale ba mbir na leer allahu akbar ah jot na nag na musa jiitu na ah, yenn nit Moussa gis nga gaa yaa ngi nii yenn niti Moussa daw nañ làqu gisuleen ñi xaarun di liggéeyal xanaa gisuleen ñi xaarun liggéey xaarun toskare ñeel na la ragalatuma la ragaluma fir sa ñaari kilifa yi Firawna Haamaan man deñ naa war naa ni Moussa ku set la yéen yéen e ñëw leen lakkal ma ñii rey lool rey leen haa allahu akbar kon xaarun joxe na ndigal pour ñu jàpp ñii rey leen muy nitu Muusa ak ñu baax ña ak seen xuut jekki-jekki rek yàlla mabbal paleb xaaruna ba mu ni ma daaneel ca moom ak suuf sa ah, ma ma ma suuf sa ca moom amatul kenn ku ko dimbali moom xaarun ma màbbal palem ba ca kenn du ko dimbali allahu akbar shahida nga xam ne doon nañ ñéejoo am la xaaroona am ca démb ja di wax naan tuskare ñeel nag daa mel ni daal yàlla day jox day wocc bocc wërsëgam ci ku ko neex bu yàlla defulelu woon ay xéewal kon de yàlla dana ñu boole ca alkande ga li am ba des daal mooy ab yéefar du texe kon xaaru na yàlla daaneel daaneel na pale ba ah Firawna ñëw na de moom sunu yàlla ju kawe ji su jootal nañ la kon Qaarun yàlla alag na ko siggil Haamaan ca nga wax man siggil siggil wax ak man am na lu xew de cët tët allahu akbar li xew ci dëkk bi ci mbiri Qaarun ndax am na dëgg la comme ni ma ko déggee walla déet sama kilifa gi day dama ne ndax xaaroon suuf si dafa dafa màbb mu dugg ca biir aha kay suuf si daa ubbeeku rek xaaroon ak lam amoon yépp dugg ca biir ndax loolu wóor na la dama am na mbooloo mu ma toppoon ci garde yi gis naa leen dem naa ca bërëbu xaaroon ba gis naa pale ba lépp daa daanu daa màbb léegi nag décédé gis ngeen koom déedéet déedéet gisuñu fa dara place ba lépp ndox màbb na ko ndox naan na ko daa mel ni daal ndox la moo xam lépp dafa màbb ne ju nekkum ndox amul benn décédé bu nekk ci ñoom xool leen sama mbokk yi xool leen lii xool leen kéemtaan yàlla yéen bëggoon àdduna taari àdduna xool leen li yàlla def tey bëggoon ngeen am laqaaru na am ba tax ngeen di wax naan xaaroon daal am na cër bu rëy rëy ana xaaroon tey ana këram ga ana uh, trésoram ya ana ña ko doon garde ana ña ko doon dimbali allahu akbar góor ñi waaru nañ allahu akbar allahu akbar ay waaye àdduna waaye ndekete amul ak texe ay waay àdduna daal ndekete ku ko topp ci torox toroxtaa ngi mujj àdduna daal du kërug soxuwaay àdduna daal kërug nattu la kërug fitna la allahu akbar subhanaka ya rabbi adda kamaaluk daa mel ni daal yàlla mooy jox wërsëg ku ko neex waaye moo koy nangu it ci mooy dogal lu ko neex moom yàlla yàlla nañu yàlla lamb mbalaanam suturaam ay waay àdduna daal day jeex saxul bu ñu yàlla defalu woon xéewal muy ngëm yàlla gii day yàlla danañu boole xaaruna alak day suñu bokkoon ci ñuy liggéeyal xaarun day kon danañu alak comme ni ñu ni ñu yàlla ni ko yàlla alagi danañu alagaale yéefar daal ndekete du texe ba mukk allahu akbar allaaxira jële daal yàlla mu ni dama kaa defal ñi nga xam ni dañoo dañoo bëgguñu ak kawe kaweru ak yàq ci àdduna mujj ga daal ñeel nañu ragal yàlla wallaay ndeysaan subuuxun qudduusun rabbul malaaikati wa ruux subhaana zil mulki wal malakut subhaana zil izzati wal jabarut subuhun quddusun rabbul malaikati wa ruux allahu akbar mbokk yi gis ngeen yàlla def ay samaw nit yàlla wàccewul mbugalam ci xaaruna mi day feeñalu leen kéemtaanam yu mag yii yu fés yii ngir mu sax lu dul lenn lu dul ngir mu saxal seen ngëm yàlla rek ndeysaan xoolal liñ doon wax na ko ci yàlla setale yàlla Moussa de ku jublu woon ci yàlla yàlla seetal na ko alag na ab noonam muy xaarun ndeysaan ah kon xaarun alug na alkuna alalam ja ñàkk na ko waaye ñu dem ci dellu ci naafiya daa mel ñu ngi këram seen xot a ngi noonu di ko ziar xam ngeen ni naafiya mi pàppal la ci seen xut waaw mook firaaw na yëpp bàyyi ñu ngi lay nuyu seen xuur mu mu set mu laab mi ñu ngi lay nuyu allahuma salli ala sayidina muhammad wa sallim subhanaka ya ilahi ya mawlaaya ya qadir ya mawlaaya ya gafir allahu akbar mbokkiñ bokk yàlla naa fi yaa ngi noonu seen xóot a ngi noonu di ko ziyaar si lu tax nga yónnee di ma woo yow saa baay ah sa mbir mi rey na ci man day soxlaal na ma ndax yaa ngi fàttaliku xale bu ñu daan wax Moussa muusaati muusa mooy kooku ñu xale boobu ñu feroon rek ñu foroon rek ca sa mag ja doomo woon ko muusa doomu imran xam naa ko waa moom nu mujjee daa dawoon jóge misra man maa ko tàggu man maa ko mujjee woon tàggu luy mbiram dellusi na misra nag muusa dellusiwaat naam nan la agsi daa xam ni nga xére ci Firawna rek bu ko defee nag mu bëgg loon ziyaara ñëw na ci yow moo la xamal loolu waaye nag seen xottus kare ñeel na la waay xanaa déggoo li xaw ci Xaarun dégg naa yàlla dafa màbbal suuf si ci kawam su daa xar suuf si mu dugg ca aanu tamit noonu la ko yàlla alage woon ca xaaru naa ko ëppoon doole foofu ëpp ko mbooloo waaw li ngay wax ak Moussa ci man dugal ci xaarun xaarun la ko dal daal moom yàlla moo ko fayul moo fayul Moussa waaw pexe yi mu doon defal Moussa ci la ko yàlla alagim yàlla seetal na Moussa seetal na palaasam alag na xaarun ak ñamu àndaloon allahu akbar sey yàlla ñal musal ci tuumaal ab julit mu loolu nan la ame sax Haarun dafa bëggoon mu mu til tilimal deru Moussa tiimaal ko ci njaaloo mu yebal benn soxna ci soxna yi muy liggéeyal kii bokk ak moom ci bàkkaar yi ñaawteef yooyu soxna sa dem ca fajar ga dugg ca kër muusa mu bëgg rek génn ci nit ñi ci fajar gi noonu mu feeñal ay mbiram ci seen kanam feeñ ci seen kanam ni ni ni daal fanaanoon ak Moussa loolu la bëggoon ndaw sa muusa Moussa ba mu génne nag ca kër ga mu daal ni jàkk ndaw ndaw sa gis ko rek ndaw sa commencé lox fedd weddiwaat boppam ci saa si mu mu mu seetal ni Moussa dara defu mu xam ni mu kon xaarun moo kompaloo woon ak moom moo ko yabaloon feeñal ko ci nit ñi nit ñëpp déggandoo waaw ah, loolu de xibaar bu yéeme la est-ce que soxna soos xam nga kan la xam nga ban soxna la moo def loolu lu ñaaw soxna soos kan la ka sësoon ca buur ba ca sa sa sa rakk ju jigéen ja ni bi xuur la moom la de moom mooy ki nga wax cëy léegi nag lu topp ci ni ni bi xur nag après ñu xool nu mujje ak foofu kon feeñal na mbir mi feeñal na ni deñ Moussa set na Moussa dara liñ ko wax dara amu ci ay complot loolu doon na jéemal ay pexe sama sama mag bi sama frère bi benn bis sama rakk ja dàqoon na ko ca pale ba ba bis ba nga xamee ne ca la ca mu gaañoo bis boobu ca la ko dàqe woon ndax dafa am lu mu ko naroon def lu ñaaw ma fekkoon ko moom lay nettali nii te gisoon ngeen ko yéen ñu fàttali ko la ko waxoon yow bi xuur tey bisub xuloo la ak jaamaar loo maa la jënd sama alal ma féetale la sama bopp ma dénk la samay secret ma ma boole la sa ñi ma gàtt ñi ma sa wet yëpp nga jiite leen waaye tuskare ñeel na la war nga ma waaw war nga ma de samay secret wax nga ko Haamaan ak Firawna boo ma sàkkoon ci kóllëre sax wallaay dinaa ko naye bu ma laaj nan laa xamee mbir mi xam information ni ma ko jot say mbir ubbeeku na ci man këyit gi la ngay gis bul weranteeg man yaa ko bind lii lii say loxo yi yaa ko bind yaa ko yónnee woon xaamaan xaamaan moo ma ko yónnee waat waaw maanaam ku bëgg place bi nga am moo ko moo ma ko du xam yàlla day puus ñu ni ci des mooy mooy xirtal ñu war war karité ña ca des jaam buy war nag luy luy fayam hmm? yow rey la rek lañu war a def ah allahu akbar muy bëgg a jam ndaw si seet tet tet ah mbiram feeñ na nag ni ba gis nga kon gis nga lii la seen xur mi di nettali ci jëf bu ni bi njëkkoon a def komplo woon ak xaamaan ba dem ba bëgg a rey euh, soxnas buur bi muy Asiyatu bintu Mazaahim far yàlla muccal ko ndaw si daf ma bëggoon a rey de xoolal kéemtaanu yàlla allahu akbar yàlla moo ma cël ci lii bi nga digsee warkat la kii warkat kii warkat la déedéet bu ko rey alalam ju araam jooju daal nañ ko ko bàyyi moom daal bu bu bu na fi jóge bu ma ko gisati dañ ko war a fay fayu moom fayu moo ñu mayub dund ku wor koo xam ni daf la doon defal teraanga bu nekk ca moom musta def ci moom lu baax ndekete mu lay defar lu baax rek nga koy rey nga bëgg koo rey kii daal bàyyi ma jëflanteeg moom rek déedéet déedéet bul def loolu bëgguma koo gis ñu koy rey kon bàyyee maag mbir mi jugal yow bàyyi ko samay loxo rek seen xol bu ko rey bu ko yóbbu rey ko déedéet tey ñu déglu soxna si man maa am droit ci moom léegi man lu lu ñaaw loolu mu def man la ko def man maa gën a war a mën a baale allahu akbar xaw ma ndax amaana sama njuumte wala bu ma defoon moo gën sax njuumte bu gën a rëy bi mu def allahu akbar lii la ndaw sa waxoon kon beneen tuuma sinxu ndax xam nga ndaw si may wax léegi xam nga la moo tax sax ma wala fii loolooy mbir soxna soosu dey bi mu setalee Moussa ba pare moom mu wane ké mu wane kéemtaan mu gis kéemtaanu yàlla ca Xaaruna amul fenn fu mu làqatu ci yàlla lu dul mu daw ñëw ci man mi fii la nekkoon léegi mu làqatu ci sama pale mu làqatu ci firawna ak haaman pour ñu bañ koo gis démb ci guddi ñëw na ci man muy lox tiit ma woo docteur bi xool ko ndeysaan docteur bi xool yaramam wa mu xamal ma ni ma moom mi ngi ci ay mujj ay nooyam yi mujj mu moo ma dénk ni naa la woo yow mi moo ma ni naa ko